jëlee ko ci seen jëmm yu tedd yu sell yi muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di del siwaat ci kartanal yàlla di sof ak yow li ma sosoon ak ci wàllu miiraas amoon na ci jotaay yu xaw a limu yu ma ci àndoon ak yow waxoon naa la baat beeg fu mu soqee ko waxoon naa la ñi ci yonantu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa wi ñu jàng ko waxoon naa la ne wax na ne mooy xam-xam bi xeetam wi di njëkk ñàkk te loola sax moom xegg nañ ci waxoon naa la ñay doon ca góor ña xataa waxoon naa la sax ñuy doon ca jigéen ña waxoon naa la ci yi nga xam ne moom lañuy ñuy muy furud yi bu loolu la ci nisif ak rubo su mu nag sudusaanik sudus sudus kenn ku ne ci yi ak ña koy donn waxoon naa la ko xataa naam doon ak sax ci wax la ñi donn ci asable bu ñu asable nag muy alasabatu jamoo asib mooy kuy donn ci lu duhun nattale wa huwa man yarisu bila taqdirin fa ida nfarada axasa jamia almaal wa in kaana maahu saaxibu fardin axasa albaaqiya baadahu in istaraqat alfurudu tarika saqata li qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam alxiqu alfaraida bi ahliha fama baqiya fa huwa li ala rajulin zakar muttafaqun alayhi kon al asabatu mooy jabon asib mooy ki koy donn mooy koo xam ne bu fa neexee moom kenn jël xalal ji lépp bu fa neexee kuy jël cër ku mel ni soxna wala yaay mu bàyyi ba ñooñu jël seeni cër la ca des lépp mu jël ko bu dara desut mu perte waaye léeg-léeg dara dana ñàkk def tamit ñu fexe muñ ko defaraatee ba mu am ñu jàpp na nag bu fekkee dara desut perte na ñu gën a not moom la yonent bi ne woon xaj leen cër yi ci seeni borom bu fekkee des na ki gën a yell di góor moo ko moom kon lañ cay déggee ci ma famu mu xaalafa ma mooy boobu dara desul rek dafay perte waaye am na ci masalatu mu tuddee mustarika foofa dara ñàkk naa des te përéewut am na kon léegi-léegi mu ñëw mais ci saafu lay doon léegi-léegi mu ñëw ci yoonu sujuud moom asaba nag ñetti xaaj la am na lu ñu tuddee asabatun am lu ñuy tuddee asabatun bil xayri am lu ñuy tuddee asabatun maal xayri asabatu bi nafsi mooy mbooleem góor ñuy donn ci cosaan nekk ay cosaan usul bu ñëw usul rek mooy bàyyi ak maam ak ñu mel ni ñoom nga xam ne néew bi ci ñoom la soqee ko wala ñuy doonu nekk ay furoo buñ ne furoo mooy ñu soqee ci néew ba safaan ab la usul néew bi soqee ko ca moom furoo nag mooy ñu soqee ko ci néew ba lu mel ni doom doomi doom demet buñ ne ba ak ñetteel ba mooy xawaas yi mooy ñi xam ne ñoo wër néew bi ci ak bokkoo bokk ak néew bi ndey ak baay wala ñu bokkook moom ci wallu baay ñoo mbokk yooye kenn rek mu tudd ci asable mooy mbokk ci wàllu ndey kooku dafa am cër buy kenn sudus waxoon naa la ko buñ kumbee ñu boole leen sudus ba buñ koy séddoo nag ñëpp a ca xam góor ak jigéen ñëpp a ca xam kenn du ëppale sa morom kon kooku mooy maanaam asabatu bi nafsi waaye du moom rekk ñaareelam ba mooy kuy donn ci kilifteef kilifteef mooy ci goreel jaam bi moo xam góor la ak jigéen foofa góor ak jigéen a fa am jaam bi mu goreel bu génnee àdduna amul kenn ku koy donn moom mi ko goreel moo koy donn ndax moom goreel gim goreel jaam bi fa mel ni ku ko may ak dund liberté gim ko may ba mu saña ba mu saña moom xalal saña takk soxna ci lu dugul ndigalal kenn saña fase ci lu dugul ndigalal kenn saña moom saña def saña dindi ku la may loola fa mel ni laa may ak dund looloo waral kooka boo génnee àdduna amoo ku lay don amoo fi ay usul amoo fi ay furo amoo fi ay xawaashi moom mooma moo lay donn moom kenn su fekkee da ngaa dee bàyyi fi ñuy donn waaye mënuñoo jeexal alal yaay nga fi bàyyeeg doomu jigéen ak mu mel noona walla ay mbokk jigéen mënuñoo jeexal dañuy jël buñ jëlee la ñuy jël la ca des lépp yow mi ko goreel moo xam góor nga moo xam jigéen nga yaay jël la ca des lépp ndax dafa mel ni danga ngaa may waaju dund moo tax tamit ñu may la la ñuy may koo xam ne dafa soqeekoo ci moom looloo waral loolu yonent bi daan wax ne kilifteef de muy wala loxmatum ka loxmatin nasab looloo waral kon nirale googu moo tax ñu dugal ko ca oo oh, oh, fuqahaa yi dañ ko def qiyaasu tasbih jëlalee ko ci nafs boobu ma wax la ci hadis bi kon ñaar ñi ñoom la ñu tuddee asabatun bin nafsi mooy gépp koo xam ne ni cosaan nga ci néew bi néew bi dee ci yow la soqee ko yaay baayam mbaa yaay maamam wala néew bii dee yow ci moom nga soqee ko doomam nga wala doomi doomam nga bu bàyyeekoo ci doom ju góor wala mbokkam nga da ngeen bokk ndey ak baay wala ngeen bokk baay waaye bokk leen ci wàllu nday rek su fekkee da ngeen a bokk ci wàllu nday rek moom mu dee yow ngay mbokkam mu ñëw di ko doon ci wàllu nday booy kenn sudus bu ngeen tumbee mat ñaar jëm kaw sulus ñaareel ba nag mooy ku goreel jaam bi bu fa neexee moom kenn lépp lay jël bu fa neexee ko am cër mu bàyyi ba ñuy jëm buñ jëlee mu jël li des ñaar yi la yëpp asabatu bi nafsi la ñaareelu xaaj ba muy maanaam al asabatu bil xayri mooy xasable goo xam ne nga ànd ak keneen ñi ko sañ mooy doom yu jigéen yoo am yaa dee bàyyi wi say doom yu jigéen ñi ànd ak say sët yu jigéen yu soqee ko ci doom ju góor su boobaa asab al asabatu bil xayri lay doon wala nga dee bàyyi fi mbokk yoo bokkal ndey ak bàyyi ñu jigéen ñu nekk al axawaat al shaqiqaat ñooña dajeeg al axawaatu lil ab bi mooy mbokk ci wàllu baay su boobaa ñii ñëpp ma wax ku ci ànd ak góor gu tolloog yow ci daraja wala bu ngeen nekku daraja ci melo ah dañ koy wàccee ca wàcce waayam ba góor ñaar jigéen benn ba mu jeex foofu asabatu bil xayri la yaa dee bàyyi ay doom yu jigéen yu ànd doom yu góor kon doom yu góor yooyu dañoo ànd ak doom doom yu góor dañoo ànd ak doom jigéen yi le doonu sa alal ji lépp góor ñaar jigéen benn ba mu jeex wala mu dee bàyyi ay doom yu jigéen doom yu sët yu jigéen ñu bàyyi ko ci doom ju góor ñooñu xam càmmeñ góor ñaar jigéen benn ba mu jeex wala ay mbokk yu jigéen yoo bokk ak ndey ak bàyyi ñu xam càmmiñ góor ñaar jigéen benn ba mu jeex wala ñooñu yëpp nekkuñ fi waaye da am mbokk yoo bokk ak bàyyi ñu nekk ay jigéen yàlla dogal ñi xam ku leen góoral góor ñaar jigéen benn ba mu jeex kon nag su boobaa loolu bu ñu xamee zakarul mu maasi su boobaa ci daraja wala ci melo su boobaa ala kulli dañuy labal alal jël lépp kon noonu lay demee su fekkee ne nag kon noonu lañ koy donnoo ba mu jeex alxasabatu nag mahal xayri donn goo xam ne nga ànd ak keneen kooku mooy ku dee bàyyaay mbokk yu jigéen yu mbokk ak ndey ak baay ak ay mbokk yu jigéen yu mbokk ak baay muqinaati alfuruu fa tajcalu alaxawaati alshaqiqaat bi mansilati alixwati alashiqaa wal axawaatu lil ab bi mansilati alixwati lil abbi su boobaa dañuy wàccee wàccee waayu mbokk yi nga bokk ak ndey bàyyi te jigéen dañ leen di wàccee wàccee waayu mbokk yoo bokk ak ndey ak bàyyi te góor ñuy wàccee mbokk yi nga bokk baay te ñuy jigéen wàcceewaayu mbokk yi nga bokk ak baay te ñuy góor foofa dañuy doon mu xalal jabam jeex tàkk su ko defee ñu nekk alxasabatu maal xayri hunna al axawaatu alshaqiqaat wal axawaatu lil abbi maa inaasil furuuci mbokk ci wàllu ndey ak baay ñu nekk ay jigéen walla mbokk ci wàllu baay ñu nekk ay jigéen bu ñu fi dajee doom yu jigéen bu soqee ko ci néew bi dañ koy asable su boobaa kon boo jëlee cëral doom ya la ca def mbokk yaa koy jël ba mu jeex tàkk amul keneen kuy mën a doon kon foofu mooy al asabatu ma al xayri kon nag musubaat yooyu noonu lañ koy tënkee asabatun bil nafsi wax naa la ko asabatun bil xayri wax naa la ko asabatun maal xayri wax naa la ko ñetti façon xasab yi moo am ci miraas su ko defee kon nag xasable yooyu dañ koy tënk dañ koy tënk ci toftale gile mi ngi man a amee ci bunu wëtun ak doomoo ubbu wëtun ak baayoo uqu wëtun ak mbokkoo umoomatun ak baay taxu zul wala ak borom ak kilifteef ñett yi maanaam ci juróom yi rek la mën a doon koo dégg mu ne damay xasab rek boo ko seetee seet tànk ya dooma leen ak doomoo dafa faa ne mooy da nga koo jur wala ak baayoo nekk fa mooy dafa laa jur wala ak mbokkoo nekk fa dangeen a bokk fu ngeen soqee koo waaye nekkul ci ndey nag bokk soqee koo ci nday ak baay wala ci baay rek waaye waxuma nday rek wala ak baay taxoo seen cosaan yi dafa am lu leen boole wala kilifteef mooy goreel yii ci lay mën a doon su ma ne doomoo rek doom dugg na doomi doom dugg na doomi doom yu soqeekoo ci doom ju góor demeet dafa cay dugg su ma ne doomoo doom yu jigéen dugg na doom yu jigéen yu soqeekoo ci doom ju góor dugg na ñii ma tudd ci ñaari jigéen ñi de mooy doom bu jigéen wala sët bu jigéen bu bàyyeekoo ci doom ju góor bu ñu àndee bu ñu àndee góor bu bu koy kenn ku ne ci ñoom boo xam ne càmmeñ càmmeñam ja moo koy may doole ba mu mën a asable su ma ne bàyyoo bàyyi dugg na bàyyi bàyyi dugg na muy maam ak lum kawe kawe waaye ca góor ga nag maam yu góor di dem maam ju góor di jur sa bàyyi maamaat ju góor ja ko jur demeet te ña jàpp ca maam ya fañ ko yemale dinaa ci hegg ñu jàpp na ñaari maamay doom ñeen ñi ne ñu ko kawe ñu ne benn ba yëpp dinaa ci hegg su ma ne mbokkoo képp koo bokk ak rek ci ñaari wàll yi muy ndey ak bàyyi wala ngeen bokk bàyyi wala seen doom yu buur ya noona dugg nañ waaye mbokk moo xam ne ndey rek leen boole moom dafay donn ci cër waaye du mën a donn ci asable kon al maanaam al uxuwatu lu fiha al ixwatu li gayri ummin wa abnaawum wa in nasalu bi maxdi dukuri wa kasa al axawaatu li gayri ummin ida kunna asabatan bil xayri aw maal xayri kon mbokk yu jigéen ya sax ca wàllu ndey ak baay wala ca wàllu baay ya bu ñu àndeek càmmeñ wala ñi ñoom ñooña ñi dem ànd doom bu jigéen eh, walla sët bu jigéen bu soqee ko ci doom ju góor bu tee ba boobaa tamit taxaw na kon loolu bugg na ci uquwatu gamal doon wax su ma nee xumumatu nag bàyyi taxoo dana ca tàbbi bàyyi tëx bu bokk ak sa bàyyi ndey ak bàyyi wala ñuy bokk bàyyi waaye waxuma nag ci wàllu ndey rek ah boobaa tamit yi bàyyi tëx yooya dugg nañ ca ci wàllu euh, bàyyi tax bu bokk ak sa bàyyi ndey ak bàyyi wala ñuy bokk bàyyi seen euh, doom ya dugg nañ ca comme wàccee nañ ci wàllu góor gi rek kilifteef nag buñ ko waxee mooy ki goreel jaam bi bu dee góor wala muy jigéen ñooy am àtte bu fa neexee moom kenn lépp lay doon bu fa neexee ak keneen mu bàyyi ba ñu ne jël da ca des lépp mu jël ko kon lii mooy xeeti asable yi ci wàllu ndono ga ci wàllu nag loolu la su ko defee kon wàllu waa ngoog muy juróom ya léeg-léeg am ñu ca dolli beneen muy juróom benn jàppale bu nu watu ubbu watu juddudatu ixwatu banul ixwati umumatu ak banuhum ak wala zaatu wala muy borom ak kilifteef waaye xalaa kulli xaal juróom yama la waxoon dugalaale na yooyu ñëpp kon nag mbir yaa ngoog ci wàllu xasable moom la yonent bi waxoon sallallahu alayhi jox leen borom cër yi seeni cër la ca des ngeen seet ka gën a yell ca góor ngeen jox ko ko alxiqul faraida bi ahliha fa ma baqiya fa huwa li awla rajulin zakar kooku xadiisu muttafaqun alayhi la buxaari yu muslim yépp ñoo bokk indi xadiis boobu ki gën a yell na su doom bu xasee taxaw kay moo gën a yell baay moo tax baay ak doom bu ñu fi dajee dañuy cëral baay la ca des ñu jox ko doom ja moo jiitu moo gën a moo gën a jege baay bu fi newee moo gën a yell maam moo gën a jege ndax kat bu fi maam newutoon ci lay baay door su fi baay xasee taxaw bu fi baay newutoon lay maam di mën a taxaw waaye bu bàyyi xasee taxaw nag maam ja soqee koo ca moom dootul mën a doon donnooti ndax moo gën a wàcc naka noonu tamit ki gën a yell buñ ne ñaari mbokk fi taxaw kii dafa bokk moom ci ñaari wàll yi muy ndey ak baay xam nga ni moo gën a yell ka bokk ak moom bàyyi rek su boobaa kooku dafay dàqu su ko defee kon ah, noonu la demee ah, moom la shaa'iru ba wax imaamu jaabariyu mu ne fa bil jihati taqdimu suma bi qurbihi wa baadahuma taqdimu bil quwati jaala kon noonu la demee moo tax mu ne kon jiital gi noonu lay demee su fekkoon nit dafa dee bayi fi baay bayi doom ñaar ñi rek la bàyyi ci kaw suuf doom jaa ko gën a jege moo soqeekoo ci moom su boobaa baay jo dañ koy cëral jox ko sudus comme doomaam na la ca des lépp di juróomeeli xaaj ba ñu jox ko doom ju góor ji waaye foofa nag bàyyi cër lay xam waaye kenn du fa du ko dajeeg doom moom muy xaarati maa baq ya bu fa doom néewutoon nag mooy nekk seet ba ndax kat wàllu doomoo moo ëpp doole wàllu baayoo naka noonu bu ñu tuddee woon bàyyi jabar bàyyi doom bàyyi doomi doom jabar ja la ñuy cëral jabar ja moom moom sumun ba la ca des lépp doom ju góor jaa ko moom doomi doom du du dara ndax balaa sëta wax di taxaw day fekk maanaam doom ñàkk faa nekk waaye comme doom xas na am te yow yaa ngi soqeekoo ci doom waaye waaye ki nga soqeekoo mu la gën a foor kon yow da ngay effacé wu ku bu sa kilifa nekk dootoo nekkati ku bu sa kilifa néewul nag yaay kilifa ga naka noonu bu nit ki dee woon bàyyi bàyyi tëxab bàyyi bàyyi maanaam doom doomi doom bàyyi maanaam doomi doomi doom joo xamee na ni dafa soqee ko ci bàyyi tëx bi su boobaa alal ja lépp li ibnil am ni doomi bàyyi tëx jaa koy moom an nazil duna amnil abbi doomi bàyyi tëx ja moo koy donu wëlis bàyyi taxu bàyyi ja ndax doomi bàyyi tax ji moo gën a jege bàyyi taxu baay bi ndax doomi bàyyi tax bi dafa jokk direct ci niw bi ci maam waaye boo seetee bàyyi taxa baay bi dafa jokk ci néew bi mën ca jokkoo ci bàyyi maam xam ngeen ne nag doomi bàyyi tax bi kon mooy ki gën a jege moo tax kon walaw halaka an ammi abihi wa ibni ibnin wa ibni ibni falmaalu li ibni al ammi annaasil duuna ammil abbi li anna ibna al ammi yattasilu bil mayti fi l jaddi wa ammu abihi yattasilu bihi fi abil jaddi fa ibnul ammi aqrabu manzilatan looloo waral kon kooka mooy donn doomi bàyyi taxa bi rek mooy donn moo ëpp doole bàyyi taxa baay bi le naka noonu bu nit ki deewoon bàyyi mbokk ci wàllu baay mbokk mi ngeen a bokk baay bàyyi fi doomi mbokk moo bokk ak ndey ak baay ki ko jur daal yaa ak moom a bokk ndey ak baay waaye ko kooku moom newu fi doom a fi ne xalal ja mbokk mi nga bokk ak bàyyi koy doon ndax moo la gën a jege ndax kii diggante moom ak néew bi xam na ko fi dox te kii diggante moom néew bi dara du fa ñoo bokk fu ñu soqee ko bàyyi rek lañ bokk soqee ko sa mbokk lañ yéen a bokk benn bàyyi kon yéen a bokk benn soqee ko waay kii nag doomi mbokk la doonte bàyyam a jege ci waaye bàyyam mu doom yooyu fi ne ah waaye doomi mbokk mi du ca doonu dara doonte doomi mbokk shaqiq kon noonu lay demee de walaw halaka an axin li abin wa bunu axin shaqiqin fal lil aqi li annahu aqrabu mansilatan noonu lay demee naka noonu bu nit ki deewoon bàyyi benn doom bu jigéen bàyyi fi menn mbokk mu jigéen mu mbokk ak ndey ak baay ak benn mbokk mu góor mu mbokk ak baay su boobaa doom bu jigéen ba moo moom genn wàll alal ja la ca des mbokk mu jigéen ma mbokk ak ndey ak bàyyi moo koy jël muy genn wàll ga doomi mbokk ma du am dara waaye du fi ñëw naan may dem góorali sama bàjjan jële déedéet du ko mën a góorali su boobaa moom fa sori am na ko dox diggante moom ak néew bi te kii ko gën a jege su boobaa kon nag kookaay doon loolu lépp dee na daal bàyyi fi ñaar kii doomam bu jigéen la tabaarakallaahu keneen ki mbokk mu jigéen mu mbokk ndey ak bàyyi la jëlal genn wàllu alal ja jox ko doom bu jigéen ba la ca def nag mbokk mu jigéen ma donn ko waaye doomi mbokk ma moom bu ca am dara kon nag wax naa la gën a jege gi ci bunu watu gi ubbu watu gi uxu watu gi muy ci doomoo geeg baayoo geeg baay taxoo geeg ya ca xaju kon alal jàngoog yow mi xaar li def bu yàlla dogalee am lu def jëlal nga yóbbu comme ni baay bi mu fi defee doom baay ja jël sudus ba bu doon juróom benn million la waa ji dee bàyyi ko bàyyi fi doomam bu góor juddu ci yoon bàyyi fi baayam ñoom ñaar rekk a fi nekk juróom benn million la waa ji dee baay baay ja moom benn million ba juróomi million ya ca des yëpp ñu dox ko doomam ji moom nii dee doom ju góor ji mooy doonu lépp mu jeex ndax moo gën a jege kon foofa am na lu des bu yàlla dogaloon nag nga doon xaar maa baq yene damay xaar man waruma am cër bu gaa yi jëlee li des laay jël yàlla dogal dara desut aa ah, su boobaa doo xamati dara waaye léeg-léeg dara ñàkk a des ba pare ñu boole xaat la ca nga xam loolu am na ah, waaye bëriwut lu muy xam mu ngi mel ni tey nit ku dee bàyyi jëkkër bàyyi yaay bàyyi maam ju jigéen su ko defee ak ah, ah, ab lim ci ay doomi ndey su boobaa xam nga asabatu nga ma ngay bàyyeekoo ca ashiqaax ya muy mbokk yi nga xamee na nii ñooy bokk ndey ak baay walla ñu bokk baay waaye fii moom boo ko seetee ala kulli haal euh, jëkkër fi ne rek ak yaay ak maam du jigéen sawjun wa ummum moo fa ne wala sawjun wa jëddatun jëkkër ak maam du jigéen wala jëkkër ak yaay fa ak kasar wala lu gën a bari loolu wa adadun min awlaadil ummi ak lim ci ay doom yoo xam ne ci euh, ñu ngi soqeekoo ci yaay te fekk nag xam nga asaba moom min al ashiqa su boobaa kon su fekkee jigéen a dee bàyyi na jëkkëram bàyyi na yaayam bàyyi ñaari mbokk ñu soqeekoo ci wàllu yaay ak menn mbokk moo xam ne yéen a bokk ndey ak baay su boobaa masalatuma ci juróom benn lay déparé jëkkër ja moom moom genn wàll ga genn wàll ak juróom benn ñett la bu ko defee bu def ñett yaay ja moom moom sudus ba mooy juróom benneeli xaaj ba su boobaa kon ñaaray def Ah, ah, mbokk ci wàllu ndey kum kumb lañ ñoo moom sulus ba sulus ak juróom na nag ah, boo ko seetee dafay nekk ñaar kon alal ja jeex na al aqu shaqiq bi taxawoon di xaar ne maa ngi bi ñoo bokk ndey ak baay ak kii ngeen jox wala ñii ngeen jox ñaar ñi ndey rek lañ bokk moom nu may def su boobaa xam nga ne alal ya jeex na su jëloon kaayida bi dafa du am dara kaayida bu ñu jëloon kaayida bi yonent bi ne woon alxiqul faraida bi ahliha fama baqiya fa huwa li awla rajulin zakar muy xadis waqad muttafaqun alayhi la bukaari yoog muslim yëpp indi nañ ko léegi nag cër ya jeex nañ su boobaa nag al aqu shaqiq bi boo jëloon ci muqtada nas bi Ah, moom ci boppam du xam dara du ko mën a am ndax euh, mbir ma jeex na foofu la ñu tuddee masalatu mustaraka danañ koy tuddee ximaariya danañ koy tuddee yammiya su boobaa nag ci mazhabu imaamu Malik ak mazhabu imaamu Shafi'i mooy moom dafay dem bokkaale ak mbokk ya mooy mbokk ci wàllu ndey ak baay dafay dem dem mbokk ak mbokk ma ca wàllu ndey ca seen ba suñ ko mënee séddoo te du damm baax na suñ ko mënta séddoo ta du muy damm ñu jël euh, cosaaneel masala ma dóor ko ci bopp way damale yi lum la jox boo ko séddalaatee dana ca xam képp du mën a am benn jafe-jafe kon nag loolu la Maalik gëm imaamu Saafi loolu la gëm mooy at tashriku fiha bayna al al ashiqa wa ixwati wal ixwatu lil ummi fi sulusi kooku mooy mu jël ñaari riwaaya yi ñu jëlee ci Omar mooy benn riwaaya bi nga xam ne tamit moom la jële ci Sayd ibnu Saabit loolu lañ gëm waaye nag la doon muqada masuba mooy mbokk ma ci wàllu ndey perte bañ a doon dara loolu la nasu di wax moo tax mu ne wa sawaabu adamu tashriiki li annahu muqtada nafsi kama sabaqa su ko defee kon nag loolu moo doon masala mi waaye ci masabu Malik moom lañuy jëfandikoo mooy boole mbokk ma ca wàllu ndey ak bàyyi mu dem mbokk ak mbokk ya ca wàllu ndey de kon noonu lay doon su fekkoon ne tey nag da nga fay woon jëkkër ji walaw kaana badalu zawji zawjatan soo fi jëlee woon jëkkër ji teg palaasam jabar ji nga xam ne kon jëkkër a dee bàyyi jabar waaye léegi jabar deetul bàyyi jëkkër kon la kaana laha rubo rubo bi moom lay doon yaay ja jël sudus ba ñaari mbokk yi ci wàllu ndey jël sudus ba su boobaa kon benn dana des benn booba nga jox ko al aqu shaqiq te mooy mbokk mi ci wàllu ndey ak baay su boobaa kon noonu lay demee euh, walaw kaanu mi ata aqin tamit buñ nekkoon téeméeri mbokk tamit ñoom la ñuy jox benn booba ñoom ñi ñi ñi bokk ko su ko defee kon nag waaye mu muy fekkee ne danañ xam rek buñ ko mënee séddoo baax na buñ ko mënta séddoo buñ ko dëkki sànnal masalama tamit saa ko ca dóoree lu mu la jox rek bu séddilaate dana dana jub naka noonu tamit bu fekkoon tey da nga remplacé ñaari mbokk yi ci wàllu ndey nga jëlee ko fa carrément jëlee fa ñaari mbokk yi ci wàllu ndey te mooy ñoom ñaar ñu jëloon furus ba jël seen place teg fa mbokk muy mel na mbokk ma fay taxaw kon ah, jëkkër ja nekk fa nekkoon ba tey kon jëlal jëkkër ji nga jox ko nisif jëlal mbokk mi nekkatul ñaari mbokk mais kenn la ñaari mbokk yi ci wàllu ndey nga fa jëlee teg fa bàyyi fa kenn ka su boobaa kon menn mbokk moomu ci wàllu ndey comme nefatul ñaar sudus lay am ñoom buñ xumbee foofu surakaaw fi sulusi buñ nekkee kenn sudus lay doon su ko defee kon nag euh, su boobaa kon nga jël mbokk ma ci wàllu ndey jox ko sudus jël yaay ja jox ko sudus su boobaa benn dana def benn booba nga jox ko al aqu shaqiq mooy mbokk ci wàllu ndey ak baay buñ doon julley mbokk tamit ba tey danañ am naka noonu bu fekkoon tey da ngaa remplacé al aqu shaqiq bi nga jël uxtu shaqiqa mu nekk palaasam jëlal jëkkër ja jox ko nisif muy ñaq ci juróom-benn ya nga jël yaay jox ko sudus muy benn ci juróom-benn ya nga jël ñaari mbokk ya mi maanaam ci soqeekoo ci wàllu ndey nga jox leen sulus ba muy ñaar su boobaa xam nga dafay jeex te xam nga ne al uxtu shaqiqa dañ koo wutal cër dafa am cër ci alquran su boobaa kon da koy jox misit moom tamit masala dafay mujj dootul nekkati juróom benn mais dañ koy sompal ñett mu fekki ko muy juróom ñeent su boobaa boo séddaleyaatee rek dana jub kocc kenn kon dana xam uxtu euh, shaqiqa dana xam misifam ba bu teree këlee këlee am tamit misifam ba ñaa yaay ji dana xam suddu ba bu teree tamit tabaarakallaahu ñaari mbokk yi danañ xam seen suddus ba muy ñaar ña dana jub de duñ ca am benn jafe-jafe waaye foog nga somp ñett teg ko ca de muy juróom-ñeent ci lay door a mën a wér naka noonu su fekkoon dafa ànd ak uxtu shaqiqa boobu ma neen mbokk su boobaa ba tey dana baax uxtu saqiqa bi duhutul uxtu saqiqa mais saqiqataani lañ ñaari mbokk yoo bokkal ndey ak baay lañ ñu fekk ñoom a tuddoon kon nag ñoom sulisaani la ñuy am waaye dañuy somp masala ma dolli ca beneen ki juróom-ñeent ya mu dem ci fukk su boobaa kon foofa yëpp boo ko sa jëlee dana wér seen sulisaani bi dana mën a génn sudusu euh, yaay gi dana mën a génn euh, su euh, ñaari mbokk yi ci wàllu ndey tamit dana mën a génn kon nag fii la gis qaayida bi am ba pare dafa génn qiyaas ñaari yoon mooy ne lañ doon séddale jeex ba pare te toogoon di xaar maa ya jàllal bi ko amaat te loolu bokkutoon ci li ñu liin soo jëloon nasu hadis bi na ko yonent bi waxee nga déggee woon ko ci zahir ba noona nga jëlee ko noonu li ko noon du xam kon nag ah, ah, loolu moo tax mu leen tuddee masalatu mustarika kon tamit mbir yaa ci wàllu ndonu ga ak la ci xaju boo jëlee tamit ah, du donnu doomi bàyyi néew bi ñu gën a kawe mënuñoo donn di ànd ak doomi maanaam baayam laa yërifu banu abil mayiti doomi bàyyi néew bi al ala maa bani abihi al aqrabi ànd ak doomi baayam ya gën a jege donte wàcc nañ ndax kat doomi baay ñoo gën a jege daraja ca ñoom ñële kon nag mbir yaa ngóog ci wàllu miraas mbir yaa ngóog ci wàllu miraas xam ngeen ne aljaddu masalan aqrabu mi man yastamiu bihi fi abil jaddi xam nga ne maam moo gën a jege bàyyi maam moo tax kon wa lidalika kaana banul ixwati wa in nazalu awla min al amami wa in qarabu kon nag doomi mbokk ñoo gën a jege doomi bàyyi tax ya ñooy gën a yàlla ci donu ah, maanaam bàyyi tax ya euh, waaw waaw ak lu bàyyi tax ya mën a jege woo moo tax ko nit ki bu deexoon bàyyi bàyyi taxam maam bàyyi doomi doomi doomi bay tasa baay xalal jël lépp doomi bay tasu baay bi lañ koy jox ndax moom moo gën a jege daraja ca bay tasa maam jëli kon nag yooyu yëpp taqdim bi ak taaxir bi dafay xaajowoo ñu mën koo xam su ko defee nag laa yatasawaru taqdim bil quwati illa fil ixwati wal amam wa am naa yihin wa in nasalu euh, taswir gi ñuy def ci taqdim ñaareel ci euh, ba ci ëpp kartan li ñuy xamee rek ci mbokk ak ci bàyyi toxlu ak seen doom ya foofu rek lay mën a xamee ñaareel ah, naka moom tamit euh, ki nga xam ne moom la mooy goreel jàmm bi moom bu ci dajee ku doon donn ci askan ki ci ci askan ko gën a jege fuuf moom lay mën a doon moo tax moom du mën a doon ànd ak ku xasab la ki goreel jaam foo ko fekk muy doon rek day fekk kii muy doon xamul kenn ku ko doon ci xasab la waaye bu xamoon ñu koy doon tamit ñu koy doon doonuñ ko ci xasab la mooy ñu mën ko jeexal alal mel ni yaay ak doomu jigéen ak yooya bu ñoo nga jëlee la ko def ñu doon ko mën a jël naka noonu tamit bu nit ki bàyyi doom doom yi ki goreel jaam bi ki goreel jaam bi dee na bàyyi fi doom dee bàyyi fi mbokk alal ja doom ja lañ koy jox moo gën a jege mbokk mi naka noonu bu dee woon bàyyi doom ak doomi doom alal ja doom ja lañ koy jox moo gën a jege doomi doom ci ki goreel bu dee woon bàyyi mbokk moom mi goreel moo xamee na nii shaqiiq la ki mbokk ak ndey ak bàyyi bàyyi bi mbokk moo xam ne ci wàllu bàyyi la xalal ja mbokk mi mbokk ak ndey ak bàyyi lañ koy jox bu dee woon bàyyi doomi mbokk bàyyi doom moom mi goreel ju góor bàyyi fi doom bu jigéen moom mi goreel xalal ja dañ koy jox doom ju góor ja rekk ndax mooy aasib bi te aasib bi nafsi la te maanaam bintu ba aasibatu bil xëyri la kon su boobaa doom ju góor ja lañ koy jox kon nag masala yaa ngoog ak li ci xaju léegi-léegi nag da gis kenn nit di donn ci cër su boobaa doom ja moo moom misit ba la ca des lépp bàyyi tëx baa ko moom waaye doomi bàyyi tëx ba dootul amati dara bàyyi tëx bee ko hiir ndax balaa dooma doon na fekk bàyyam ñàkk fenn wala shay a di ibnil ammi bi jihatil fardi li annal binta taxjubuhu wala bi jihati taasib li annal amma yaxjubuhu kon moom ñaara ko hiir doom ji hiir na ko ba doom ji xasee am rek doomi bàyyi tëx bi dootul mën a dono ci ndax dooma la gën a ji moo la gën a a waaye bi bàyyi tëx bi xasee xam tamit dootoo mën a dono ci kon bàyyi tëx ba dafa lay ci xasable euh, su ko defee doom ju jigéen ji xiir la ci cër nga ñàkk ñaar yëpp doo ci léegi nag su fekkee dañ koy xiiree ci genn wàll mu donoo genn wàll ga mi ngi mel nit ku dee bàyyi benn doom bu jigéen bay ñaari doomi bay tëx waaye ñaari doomi bay tëx yooya kenn ki mbokkam la ci wàllu ndey ah doom jaa moom genn wàll xalal ca la ca def lépp ñaari doomi bay tëx ya ñoo koy donn ci asable suñu koy donn nag ñoo cay xem la képp kenn du ëppale sa morom su boobaa nag walla ah, wala waarisa lil aqi min al ummi mbokk ci wàllu ndey dootoo ko mën a cërale ci ndax maanaam doom bu jigéen bi moo ko hiir sa mbokk ci wàllu ndey juróom a koy hiir juróom yooya doom bu góor doom bu jigéen baay demeet euh, ñooña ku ko mën a xam ba muy juróomi nit kenn doomi baay maanaam mbokk ci wàllu ndey dootu doomati su ko defee kon tamit naka noonu su fekkoon ne jigéen a dee bàyyi bàyyi tëx bàyyi doomi bàyyi tëx doomi bàyyi tëx boobu tamit mooy jëkkëram ah doom ah, ah, su ko defee ah fali ibni um hammiha ah, doomi bàyyi tëx ja moo genn walla xalal ja ndax mooy jëkkëram la ca def lépp ñu jox ko bàyyi ba beneen doomi bàyyi tëx ba dootut mën a doon nooti dara walaw halakat imraatun an ammin wa ibni ammin huwa zawjun fa li ibni ammiha nisfu fardan li annahu zawjun wal baaqi lil ammi wala waarisa li ibni l ammi bi taasibi su boobaa doomi bàyyi tëx ja genn wàll ga lañ ko hiiree moo tax dafay jël cërëb jëkkër ji rek ah, doon na ko muy cër ba di misif waaye du mën a jël nag cërëb entable ba ndax bàyyi tëx bee ko ah, hiir bu sa bàyyi tëx xasee xam kay doon dutu mën a doonati kon timit mbir yaa ngoog ci wàllu ndonoma andil naa la ci ay amsilata yu bëri ci wàllu hiir ya nag soo ko seetee ci luga li muy tekki mooy almanu waaye boo ko jëlee ci istilaa ulamaa wu miraas istilaa ulamaa yi min al irsi kullihi aw ba'dihi lu ko defee mooy xeeñ ci war a donn ba du donn lépp benn nga xeeñ ko lépp wala nga xeeñ ko lenn la man nga koo xeeñ mu jëlee ca la gën a bëri jëm ca la gën a tuuti léegi-léegi dana am daje goo xam ne da koy xiir moom dootul doonati dara far sax moom nag fiirante ji dafa nekk dunt bu am importance ci wàllu miraas soo xamul nañuy fiirante rek man ngaa jox koo xamee ne ko bu yàgg am na ko ko hiir moo tax kon boo jàng miraas fexe ba xam ni ñuy hiirantee lu ci am solo la waaye boo ko xamul rek mën na laa yàqal lu bëree bëree bëree bari bëri euh, kon nag nañ koy xam-xam sabab ya koy waral ak suruur bi ak yooyu tax ñi xeeñ ko ak xatte bi ci na muy taxawee ci xam sabab ya ak sarta ya ak mawaani yi ba nga xam ne doo fekk kuñ xeñ nga di ko jox doo fekk tamit kuñ war a jox nga di ko xeñ moom hiir nag dafay ñaari xaaj fekk goo xam ne melo la ak kiiraay goo ne jëmm melo mooy kiy donu dafa am ay melokaan yoo xam ne kum dajee ci yow dootoo mën a donooti kooku maanaam maanaam xujbun bi wasfun lañ koy tuddee beneen ba nekk xujbun bi saxsin alxujbu bil wasfi nag mooy an yattasifa alwaarisu bi maaniin min mawaanii al irsi assaabiqati lu mel ni riqu te ka njaam meloo njaam lañ lay teree doge wala nga ray ki ngay war a doon ki nga war a doon di sa bàyyi yàlla jox na la cër ba pare ci moom ah boo fa neexee yaay jël lépp boo fa neexee ñeneen ngeen séddoo comme góor ngeen kenn du ëppale sa morom bu ngeen ni góor ak i jigéen góor ñaar jigéen benn ba mu jeex cër ba yàlla joxoon na la ko pare ci alquran waaye nag melokaan woo meloo ba tax na dootoo ca mën a jotati te mooy nga dem rey baay sariya day wax ni nga boo kon dañ la yëg ne waaw ñu ne kon doo doonu naka noonu ñu ne rey bi da du rey tay ñu ne kon na doonu ca alal ja waaye bu mu doonu ca diyee ja ñetteel ba ci melokaane mooy wuutee diine sa la waaye du julli seen yow ngay julli dootu leen mën a doonoon teeti wala moom muy julli yow nekk ñàkk nekk leneen du ngeen mën a doonoon kooku mooy ixtilaafu diini kon nag ñetti melokaan yi ku melokaanoo ci yow dañ lay wuyu mooy arriqu ak xatlu ak ixtilaafu diini benn léegi nag xaaj euh, xaaj bii ma tudd muy ñetti xaaj yi mën nañ caa dugal mbooleem ñuy donu képp koo xam ne ngaa war a don koo mën a don amoon nga war a donoo ba pare yàlla dogal nga nekk raqiib di ab jaam wala nga nekk ku rey wala nga nekk ku wuute ki ngay doonu ci diine dootoo koo mën a donote kooku mooy hiiraay Eh, ci melo kiiraay bi nga xam ne nag moom ci jëmm la mën naa nekk lenn ca way doonu ña yee ma wax man naa dal ñëpp ñi ñoom ñett yee ma mën naa dal ñëpp waroon a doonu nit ki nga ko doom nga wala ngay bàyyi wala ngay mbokk wala ngay bàyyi taxoo wala ngay doom yi bàyyi taxoo mën naa dal ñëpp wala nga nekk ab jaam di kuñ moom ci nañ ko daan waxee wala nga nekk sax ku wuteeg moom ci diine loolu mën naa dal ci mboolem kuy doon ah beneen kiiraay bi nag ba tey mën naa nekk loo xamee ne nii bi ah, sax si ñenn ña la mën a dal su ko defee moom nag ay xaaj la ñaari xaaj la xeñ boo xam ne dañ lay xeñ carrément muy wala dañ laa xeñ carrément yow doo wala ñi kañ la ne la en ah kay da nga doon waaye da ngay jugee koo ci li gën a bëri wàcc ba jëm ci li gën a suufe léegi nag boo ma dégloo ma farañ pànc la ñaar yëpp kiraayal hiir mooy mënoo donn yow mi ñu hiir boo fi àndee ki la hiir waaye ki la hiir bu fi nekkutoon rek da nga mën a donu kooku moom moo moo moo moo la treize siiw waaye bu fi nekkutoon rek nga nekk saxoo ko tamit mën naa dal ñëpp wa yumkinu duxulu ala jamii al warasati illa man yudli ila al mayiti bila wasitatin juróom benn rek ñoo ca mën a génn ci ñuy doon ñoo xam ne kenn mënu leen a xiir waaye mbooleem kuy doon ki xiir la ba doo xam mbaa léeg-léeg ñi xiir la nga toxaloo ci la gën a bëri jëm ci la gën a suufe mën na laa dal ba mooy juróom benn ñi ñoom kenn mënu leen a xiir iyaay kenn mënu koo teree doon mën naa toxalu de ca la gën a bari jëm ca la gën a tuuti waaye ñàkk donu aslan man ta am bàyyi toxalu mën naa am ci moom la gën a bari jëm ca la gën a suufe boo xamee ñi mu war a daje dinaa la ko wax waaye ne bàyyi du donu diwa tax mënta am doom bu góor wala doom bu jigéen ñoom ñaar ñii kum ci mën a don xamul kenn koy dajee ku la teree mën a don manta ne jabar wala jëkkër ku lay teree mën a doonu néew fi juróom benn ñi rek ñoo mën a ñoo mën a dogu ci miraas ne comme ñun dañoo deele kenn mënuñoo tere doonu waaye koo waxati balaa mën a doonu na fekk bokkut ci kenn ki juróom benn yii waaye bu nekkee kenn ki juróom benn bu nekkul yii rek mën naa ñàkk doonu waaye ku ku dee bàyyi kenn ki juróom benn yii far force mu doonu sa xalal mënoo koo bëree njaboot ba sa bàyyi du doonu mënoo koo bëree ay soxna ci waxin ñeent ba sa ba sa doom ba sa yaay du la donn wala sa baay du la donn wala sa doom bu góor mbaa sa doom bu jigéen du la donn kenn mënu ci dara sa baay mënu fee nax ak dañ fee dajeeg say doom yu góor yu jigéen ba jëkkër du la donn mbaa sa jabar du ko kenn mënu ci dara far force ñu ñoom donn kenn mënu ci dara xuj bu nuqusaan nag mooy dañ laa jëlee ca la gën a bëri yóbbu la ca li gën a néew te la ko yóbboo mooy dafa am koo dajeek wala moo am ñoo dajeek su ko defee nag ñu toxal la danga nga de waaye lu gën a tuuti ngay xam waaye bu fi kenn newutoon bu fi kii newutoon nag wala ñii newuñ fi woon nga xam lu gën a bari kon nag loolu day xam loolu tamit mën naa dal mbooleem ñuy donu ñépp mbooleem kuy donu rek mën nañ laa hiiree ci li gën a bari ba yóbbu la ci li gën a tuuti loolu moom dootu xeeti kenn mën naa dal baay mën naa dal yaay mën naa dal doom mën naa dal soxna mën naa dal jëkkër kenn génnu ci kooku moom man yumkinu duxuluhu ala jamiil warasati min xayri istisnain kon nag ku ñu xiir ci jëmmu kuy xiire ci jëmmu ñaareel laa yaxjubu xayruhu xujba xirmaan walakin qad yaxjubu xujbu nuqsaan nuqsaan ñaareel koo gis mu ne dafay hiire ci jëmm ñaareel du mën a hiire hiire kañe waaye mën naa hiire hiire wàññi la gën a bari jëm ca la gën a tuuti looloo waral tamit lim nekk di kuñ moom a tax man tax asable mbokkam mu jigéen ma waaye xam nga su fekkoon ne nekkutoon kuñ moom sa saqiiqa bi doo ko bindal dara dafay toog moom ak sa saqiiq bi toog xaar bu yaay bu bu yaay jëlee sudus ba ba pare su ko defee ñoom ñi door a ñëw jël li def góor ñaar jigéen benn ba mu jeex tàkk waaye nekk gi kee nekk kuñ moom moo may bénéfice uxtu saqiiqatu bi jël nisif ba moo moo may yaay saas ba yaay ja tamit mën a jël sudus ba au lieu mu jël sudus ba kon yooyu yëpp dafay jara naka noonu tamit su nit ci deewoon bàyyi yaay bàyyi bàyyi bàyyi ay mbokk aa su boobaa yaay jaa moom su dus ba ndax mbokk yaa lim la ca des yëpp bàyyi jaa ko moom su ko defee ñoom xiir nañ ba pare ñoom mbokk ya aa wala say a lil lil ixwati mbokk ya duñu am dara ndax baay ji moo leen hiir ñoom nag doonte hiir nañ yaay toxal ko xalaa kulli xaal jëlee ko ca la gën a bari yóbbu ko ca la gën a tuuti ànd ak loolu tamit taxul duñ doonu dara law halaka halikun an ummin wa abin wa ixwatin fa lil ummi sudusu wal baaqi lil abi wala shay'a lil ixwati li anal aba yaxjubuhum wa innama xajabu l umma maa annahum laa na li anna al mahjuba bi charchi qad yaxjubu gayruhu nuqsaanan kuy donn ñaareel kuñ xiir ci kuy xiir te nekk jëmm man nga continuer yi xiir te nga xiiroon toxalee ko ci li gën a bëri yóbbu ko ci la gën a tuuti te du teree sax doo doo doon yaa ko xiir waaye toog doonoo dara xoolal tay mbokk mi yàqal na yaay ji te moom taxul mu am dara moo tax kon miraas kenn du ko def ci xel naka noonu bu nit ki deewoon bàyyi bàyyi bàyyi yaayam bàyyi maam dafa fee dee bàyyi bàyyi bàyyi yaayi bàyyi bàyyi maam bàyyi yaayi maam aa su boobaa umm ba mooy ummul abi moo moom sudus ba wal baaqi lahu maanaam ummil abi moom moom sudus ba la ca des baay moom ko ànd maam ji du am dara kon moom mi ngi nii li àndoo mahjoon bil abi bàyyi ko xiir li kaw ni min jinsihi ndax dafa bokk ak moom xeet xam ngeen ne bu ñuy tudd maam bàyyi fa newut bàyyi ko gën a jege wala li ummihi yaay doo xam dara li annaha mahjubatun bi ummi abi yaay doo xam dara ba yaayi baay amee rek maanaam ci la dàq moom wala li ummihi li annaha mahjubatun bi ummil abi ummi ummil abi moo ko tax ndax li kaw kawniha min jinsiha loolu tax liñ bokk xeet walaw kaana al abu nag mahduman bu fi bàyyi néewutoon la kaana li ummihi sudus kon yaayi yaayi bàyyi mooy moom sudus ba la ca des lépp maam ja moom ko su fekkoon ne yaayi bàyyi dafa nekkoon di ku ñàkk nekkul fi kon nag kaana li ummil jaddi yaayi maam mooy moom sudus ba la ca des bàyyi moom ko ah kon su boobaa kon loolu mooy miraas mi miraasa ngoog ak li ci haju tabaarakallaahu ci hiirante gi ci toxalante hiirante gi ci ah, xeñe gi ak hiirante gi ci toxalee la ci la gën a bëri yóbbu la tamit te la gën a néew xam naa boo ma toppee suba ci waxtu wi nag ma wax ak yow ci ñiy donn ci wàllu ruxum mooy meen parce ndonu gaño lañ ci xam waaye léeg-léeg ah, zawil arham yi danañu donu euh, loolu nag lu koy waral ak nu mën a xamee ak nuñ leen di ndonaloo boo ma toppee suba muy nokk mooy nekk suñ bopp bind bi su ma ci bàyyee ko ci wàllu ndonu ci wàllu hiir danaa la wax li ñu tuddee raddu raddu nag mbuxus la rek dañoo donn ba pare xalal ja def su boobaa dañuy jël xalal ja delloowaat ko te ñooñ joxoon cër ya niñ leen koy joxaatee boo ma toppee ba muy nekk suñ bopp darsu bu ci xajee danaa ñëw ak yow ba ci xunsaa muskil muy nguunu ngaana gullënt kañ lañ koy tuddee nguunu ngaana gullënt boo ma toppee suba insha allahu bu ci waxtu yu maye ak temps bi rek ñu jël ko ci in uridu ila al islaha mastataatu wa ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu inni wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu 99.0 Walfadjri FM Walf International